jërë ngeen jëf mbokk yi kon euh, ci seen émission info du matin ñu daal di koy wéyal rubrique euh, société nag ñu daal di dem rek ca Médina daqaar ku ne xam na ni foofa ma nga ca département bu Tivaouane askan wa nag am nañ ay jafe-jafe rawatina ci wàllu ndox ndax forage bi moom moom faa paan ay semaine a ngi nii juróom-benni dëkk kon ñoom ñoo yaakaar ci boobee forage ngin am ndox mun mën a naan ak tamit di ci def seen i soxla. boole ci dolli nag euh, bu tawee yenn saa yi pour dem ci dëkk ba day jafe ndax wàllu enclavement bëgg na nag loolu kilifa yi indi ci ay saafara ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. jàmbat li benn la ci dëkk yi di dalax jàpp ceeb tibaar mbamb njaxu ba tëgg di dëkk yi nekk fii ci commune bu Mérina Dakhar askan wi yeewoo fii de dañoo dajaloo yuppi seeni jafe-jafe. muy wàllum ndox ndax xool nañ ni ñun li ñu wër nii benn forage moo fi nekk. te forage bi li muy couvrir si dëkk mat na ñaar fukki dëkk ak juróom. loolu àttanu ko moo fi indi coupure ndox yi tabaski bii ñu paase moo ko weesu toog nañ ñaari fan yoo xamante ni ndox mi ay toq-toq lay doon. rax ci dollit nee nañ dëkk yi nga xamante ni mi ngi ci xolub Kajoor. yoon yu ñu jaarit jafe-jafe la rawatina ñàkkam courant. yoon bi gis ngeen ni mu mel taximaan bi bu aayul woon da ngeen di crevé si yoon bi wala ngeen ngiro ndax yoon bi suuf kese la. fii nii mën naa nekk arène nationale ndax bëri suuf kon dañu bëgg suñu maire bi fi nekk bu fekkee mi ngi ñuy dégg mu taxaw si loolu. diggoon nañu fii nii dina indi courant yi passé naan daadaa ñoo dem si urne yi courant yi dina ba tey ñëwul. suñu commune bii di def 116 villages ñi nga xamante ni ñoo fi am courant matuñu trent Kajoor dañ koo beddi dafa mel ni Kajoor bokkul Sénégal désenclavement bi ñuy wax si réew lan moo tax yegg si wul fii nous réclamons de l'eau l'eau est une source de vie c'est indispensable dans la vie amuñu ndox amuñu courant te fii ci euh, dëkk bi di dalax dëkk bu mag la waaye dëkk yi nga xamante ne wër nañu daanaka yu ci bëri wàccal nañ leen courant ba mu des dalax yoon it waxi noppi amuñu yoon yu baax suñu meññee fi génn fii sax dañuy am jafe-jafe ngir yóbbu ko ci taax yi benn tali bu ñu goudronné ba ñuulal nañu ko sax moom la ñu gis mu jóge ci route nationale bi jóge na Ndakaar waaye ci kër maire bi la yam bëgg nañ daal ñu defal ñu ay yoon indil ñu courant ndaxte fii ñu dëkk de muy dalax dugg bi dafa jafe lool ci jafe-jafe yi nag ñoom ñi ngi ciy sàkku nag njiitu réew mi rawatina nag kilifa gi nga xamante ne moom moo yor wàllu PUDC ñu taxawu askan wi nekk fii ci na Ndakaar di juróom benn dëkk yu booloo di sàkku nag ci kilifa yi ñu taxawu leen ba seen jàmbat lii de ñu mën koo saafara Médina Dakhar kon euh, ngeen gis ko noonu jafe-jafe yi askan wi di dund di ko wane Médina Dakhar nag Mor ci sa région la nekk département Tivaouane waaw c'est que Thiès la nekk de région de Thiès disons département Tivaouane euh, images yi les images parlent d'elles-mêmes je pense que boo seetee bërëb bi ñuy fajoo rek euh, xaw na doy waar quand même euh, je pense ñu ngi doon wax démb démocratisation bi ñu war a def ci gox yi nga xam ni dañu tum ranke ay moyen mm. ay euh, disons bërëb bu fajukaay euh, ñu fay dem di leen nemmeeku euh, dina ci am solo parce que dina tax quand même ku fa feebar mën a am au moins yaakaar génn ci jafe-jafe yi nga nekk mais déjà da ngay am problème mu transport pour génn ca dëkk ba mm-hmm. da ngay am problème mu làmp dangay am problème mu éclairage ak ndox ay jafe-jafe ya loo xam ne li vraiment war nañ ci taxaw Euh, te je pense ça interpelle également euh, président conseil départemental yi mm-hmm. amuñu moyen mais ñuy jéem di gëstu également euh, gox yu tumuranke yi am na ci solo muy waa Médina Xaar yooyu jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund ci miroir régional ngeen ko doon seetaan sànq ak Cheikh Anta Diop Neskis ñu dem ci rubrique santé tey la xames mbokk yi